Magal Kazu Rajab édition 2019 ñu koy Wajal bu baaxa baax li le mo waral ñu amal comité local de développement ci téwayu sous-préfet bu ndam Mamadou Mansour Diallo ak comité d'organisation bu Magal Kazu Rajab bi nga xamné Serigne Ahmadou Badawi mo leen fa teewaloon préfet bi di ñëwaat ci disposition yi nga xamné jël nañ ko pour Magal. gi. Euh, on mettra aussi en place. Euh, barabu Serigne Fallou bi ku ne xamné ne jamono bi dafa nekk ci chantier. ba tax na dañu fa jël matuwaay yu am solo ngir euh, permettre ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ñu mën a def seen ziar ni mu waree. waa police ak gendarmerie lu jëm ci sécurité bi ak circulation bi ñoom it daañ ci liggéey liggéey bu am solo ngir moytu embouteillage yi am ci corniche bi ndax nit ñi nga xam ne dañuy dem allier di ñëwaat waaye it jamono yi nemmeeku nañ ne ndox day manqué lool waaye du tee daañu jël ay matuwaay ci ay camion ndox ak ay bâche yuy am ndox ngir moytu manqué ndox mi ci màggal gi. bâche à eau au niveau de de certaines familles. Kazu Rajab di guddi gi nga xam ne ci la Cheikh Mamadou Fadel Mbacké gane woon àddina di guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci ndeyu koor Serigne Ahmadou Badawi di ñëwaat ci solos guddi googule. mooy bisu Riyaan bis boobu sunu borom terale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teraanga ju nga xam ne mosu koo teral kenn. ci la ñu xéewale itam xéewal ci cheikhuna alxadim radiallahu anhu ak jullit yi ak ak ak feeñal ci cheikh mahamadul fadil ci guddi goog gi muy laylatul israi wal mi'raj liñ fi wax léegi dana war ne guddi gi guddi xam-xam la woon danañ xam ne guddi gi moo sos jaamu yàlla dana xam danañ xam ne guddi gi guddi xarbaax la woon kon dafa mel ne kazu rajab dañ ko fayee sëriñ fàllu ci woote gi nga xam ne wooteel na ko cheikhuna alxadim radiallahu anhu màggalu tubaa gu mag gii gannaaw boo xam ne sëriñ bi nag moo ko diglee loon boppam def woon ko boppam màggal Kazu Rajab 2019 mu fas yéene doon ci ndorteel mois d'avril bi ay taalibe yu takku dañuy bàyyi ko fu ne ci biir réew meek bitim réew ngir ñëw Touba Mbacké teewe màggaluk Serigne fàllu Guilé li la sax moom moo waral am na yeneen ndaje yoo xam ne war nañ koo amalaat ngir jël mboole matukaay yi nga xamante nii màggal gi laaj na ko